butéel yaa ngi génn eh, tey làmb daal a ngi nii lii de mooy day sap sap papis dana naa rek noonu papis papis papis tey la moo taxoon sa teewaay fana fii nga gaare di fii nga gaare ah waaw. yàlla sa sama teewaay fii laa dëkk di sama lépp parcelle la fii laa dëkk mun naa ñaanal ku ne ci àdduna dëgg la waaye ñii nag dañoo dund mag ñoom Gora Sock bii dama ci wax lu bëri Gora Sock bëre simple sama sama sama sama ngéemu aareen dam doon génne ay bagages di ko jox Gora Sock muy tàgg jëfee bëre simple ci mbër laa jógee parcelle ñu wàcc ci mbër parcelle jum de laa jógee ñëwaat fii fi lañ dëkk. mais diggante ma Fils de Balla coow lu na trop. waaw ñaari góor yàlla la kii am na fit kii am na fit kii mun na bëre kii mun na bëre yàlla ay may yàlla yàlla may jaamu rek. mais boo daan bëre ba làmb yu toll fii nan nga daan doxalee ak boo gisee xale yi bu làmb seen làmb tolloo. sama xol jeex. ndax damay ñëw ba pare sama ay tool bitim réew France woo ma sama taatu tool bitim réew woo ma téléphone. sama yaay dafa naan man Papis juru ma ragal man daan naa depuis une semaine. maa ngi nii ngémmu Sénégal ku nekk France sama koñ ñoo ngi nii sama kër ceeb lañ def yow li ñuy xaar waaw boo daanoo suba sa doom luñ koy tooñee Papis dama dal ba kii ñëwaat waaye yàlla yàlla sama xol jéem a commencé naa jooy commencé naa jamu bu duggee mag astafurlahu rabi fii dara du fi dugg. tey bi nga duggee gis Gora Sock lan nga gis ci moom. dafa neex dafa neex. am na entraînement yàlla yàlla may jaam rek ko moo fekk. amiin waay làmb gëmul yàlla de. waaye yàlla yàlla may jaam waaye li bëri entraînement ak fit ak mën a bëre macha allah waaye yàlla yàlla may jaam. looy wax Fils de Balla. ah looy wax Fils ñëw stade ci jaam ak salaam yàlla bu ko yàlla dal. nda koo yéene musiba mun na laa dal yow bu ko yéene kenn yéene ci musiba lañu wax jàmm rek. mais combat bi nag waa Guédiawaye gisee ñoom Balla ñoom guy gi ñoom liiru jaan ñoom buuse ñëpp ñoo ci ginnaaw ki nga xamante ne mooy Fils de Balla. yaa ngi ci deuxième partie. waaw waaw. ah ba tey faa dugg deuxième. deuxième yow gisoo lii yëpp. kon ñun fonkuñ ko. oui xoolal lii tey daal góor soog dina wanewaat boppam tey. waaye kan mooy wutu naan déedéet. Ah, daw dëgg kan moo ñëme wuti naan du ma am kon jëru nga dem billaay ko la topp waaw kuy dugg Grand Yoff terrain nga gi nga mën a jox bu dee seen bal dafa def musiba mën naa dal ku jaamu rek sab ñoom ñëpp sama rek waaye président dëkk nag ngor su ko laay faral fils de boole sama nit la sama xarit la maa ngi ñoom mbay sañu ma ànd ñoom mbay sañ yaatu ay ministre góor a sox sama rakk la dafa yàgg maag moom yàlla ñu yàlla may jàmm amiin waay waaye laa ma gëmul yàlla de laa ma gëmul yàlla bu jëree musiba ay gaar rek ku ci dégg suul ma tere sama yaay ma jóg ba léegi dama lay dégg ngay wax naan laa ma gëmul yàlla laa ma gëmul lu muy tekki laa ma bu ko woon yàlla da nga léegay doomu adama musiba waaw ama ndaama laa ma ku ci dégg suul omi ma li laa ma ku ci dégg suul kon kenn du liggéey kenn si àdduna laa ma gëmul yàlla làmb gëmul yàlla làmb gëmul yàlla amal jàmm. lii la muy teg. teyoon nañ ko ci man laa. Ah, waaw <laughs> mënoon naa toog France. sama am na fi ne ci ñoom xam nañ ko. ma dugg ci làmb. ñoom sama bopp. làmb rek gëmul yàlla ku ñu dégg suul. amal jàmm. jaajëf. yàlla yàlla ndam rek ndam rek.